aja gars yi ah bëgg nañ leen siyaar leen bokk téléspectateur news sur Zambro TV comme ni ñu koy defee gars yi ah, di leen toppal champion daanaa ni instant yi nag ah ñu ngi ci weeru koor musulman ah même chrétien instant yi nag affaire yi pose na lamb yi dañoo ñëw nag déplacé wu ah épique bi waa Zambro TV ñëw fa ba Joal seeti champion bu mag ko xam ne kenn doo du ko présenté ci lamb ah muy El Hadj Ndiaye wala nga ne Thiatou Aïda ah euh, dikkat ci grand Zaa suñu grand boobu depuis Espagne ñu ngi koy bu baax a baax ah. gis naa ni ngay jàppee ci affaire yi voilà El na nañ seeti tey fii ci Joal hmm? fas yéene waxtaan ak moom ci carrière bi ak ci mi saison bi aussi mais xam naa dañ koy jox kàddu gi ah? mu nuyoo téléspectateurs yi ñu koy suivre à travers Zambro TV et le monde entier Thiatou Aïda nuyu nañ la. waaye ziar naa la Zam maa ngi baax di nuyu Paa nuyu sama gars yëpp di pël di ball àq ñëpp di ball àq ñëpp si weer bu nekk weer bu sell bi. di ñaan yàlla képp képp lu si ñaan rek mu nekk yiw. yàlla na tasaare si àdduna bi ba ku nekk jot sa wàll. yàlla defal ñëpp jàmm salaam ñu mel ni élection yi jàmm ak salaam ku ku war a fal si réew mi nga xam ne moo nekk njëkkalaayu réew mi waaw yàlla jox la réew mi te mu nekk lu ñu jik kenn benn si ñàkk bakkanam ñu jikko si jàmm ak salaam parce que jeunesse moom jeunesse su ndaw la quoi te ndaw moo ndaw mooy yor réew ëllëg di ñaan ñëpp di mën a xew rek def ko si jàmm ak salaam di ñaan la ñëpp jàmm di baal ñëpp àq di baalu ñëpp àq waaw di ziar bu baax a baax a baax tamit di ziar bu baax a baax. yaa ngi waaw waaw man nag maa ngi wor quoi maa ngi si koor gi dëggantaan ah, yow moom ni ma la gisee moom ni ko ak yeneen gars yi may bële ci tudd seen tur non non non am na bu yox na du ñu wor moom mais da yàqul dara hmm. xam ku nekk sa soir rek la quoi man moom koor gi moom yàqul ma dara maa ngi or maa ngi def moo def yëpp hmm. dara changé aussi nag xam dëgg fa na yàlla maa ngi or koor gi ak entraînement yi noo koy alterner waaw ñun moom tàmm nañ ko quoi chaque at dañoo or mais bu ñu tawee ba cinq heures et demi rek dañuy dem salle yëkkati garab fonu bi ñu hmm. mu koy médecin quoi mais nag bu soo gënoon sori guddi gi dañuy dem suuf sa dafa benn séance bu dëgër xam ne loolu loolu loolu moo loolu moo ñu téye quoi. Mm-hmm. waaw koor gi moom yàquñu dara parce que un mois la. Mm-hmm. un mois bëriwul bëri na. mais un mois moom yaakaar naa mënu si perte sax 5 kilos. waaw mënu ko si perte moo tax moom ni ñu def la ñuy def rek. yàquñu dara yàquñu dara wax dëgg. xam nga saa saa rek ñu moom bëri moom dañoo bëri ay baaxaar. comme weer bi weer promotion la moom. waaw ñu profité si rek si jàmm yàlla. waaw ñi tamit si ñu jot def yëpp. waaw si weer bi waaw. bu ñu si dugalati tamit. waaw def lu gën si ñun rek. waaw loolu la quoi yàlla baax na. ñu ñëw ci saison bi yaakaar naa ne saison ren <coughs> euh, yàggoo tëj parce que day ak da nga komba combat ah combat arène yaakaar naa. waaw amoon naa combat début saison bi. moo tax mu yëxoon wa, quoi. am combat ma jëm ko am ñaax combat bi di si war tamit di bawloo ñëpp ak foofu côté boobu rek dina xam ne loolu la quoi loolu yàlla namoon si ñun parce que daan dem di yàlla di ñu may ndam. bu demee yàlla xam tamit ngeen nangoo de parce que def nañu woon def ñu def def nañ ko. yàlla moo may yàlla mooy xañe yàlla mooy xañe ngeen nangu. te ko tam tan nangu nañ ko ak diñma ak suñu mbokk ak suñu famille ak suñu am di jamm suñu nit suñu lepp ku nekk tamit sitaanuñu si quoi parce que bu mu amee ku nekk ñoo ébu lañu waxtaan ñun dañuy conseillé bu baax a baax ba tey jii nii ñu ngi nii ba léegi nii di si bee suñu waa si làmb ji mm-hmm. ndaw lañ liggéey làmb lañ am yàlla mun na toll làmb dañ koy def lu mu mën di métti métti métti lu mën a xew tamit dañuy après dañuy xiisu ba fëggaat takkaat seer bi ñëwaat si làmb ji waaw mun nañ si am mais ba léegi ci combat bu nga tudd gis nañu combat boobu El Hadj amoon na fu mu ko mënoon a yóbbu ci làmb parce que day une forte mobilisation nga def ci toujours combat boobu. waaw dëggantaan combat bi su ma nee moom na ma lu su ma nee yàqul ma wax ma lu am. parce ba tey moo tax ba léegi moom na amal combat damay taxaw combat ñu naan ma kii daa daanu daa daanu affaire bu baax a baax nag mais tamit ibil bët parce que après may na ma gën a xam quoi parce que ba daara boo ñëw zoal xam naa nit ñi bu baax fu ma teg bu baax a baax waaw moo tax après daal loolu jàngat la quoi te jàngat bi incha allah naa def sama sama bopp bu baax a baax naa si am jàngat bu bëri bëri bu rëy incha allah bu si yàlla amante beneen rek yàlla mi dem ni seetu gi ba léegi élage ci côté jàppale gis nañ ne euh, jàppale bi euh, mooy loolu parce que d'ailleurs bi nga amee combat organisé woon fii open press bu ma juumul gars yëpp ñëw en masse ñëw jàppale la dafa mel ni daal El Hadj Ndiaye ah euh, ce que ne jotul ngay am ay deux ay trois combats arène par at parce que gis nañ li ngay mobiliser biir Joal dafa bëri. waaw dëggantaan dëggantaan parce que boo xoolee Joal moom benn bopp la quoi. Hmm. rëy na rëyul am na ñu jaar côté am ñu jaar mais tamit bu nit xewlee. Hmm. ñëpp ñëwal jàpp si. Hmm. parce que à chaque fois man sama sama xew-xew boobu. si laay waxee quoi su ma amee xew-xew. ñëpp ñëw mbëri du ko dalee Fadiouth ba Caritas. ñëpp dañuy ñëw jàpp si am ama jàmm grand yi sama grand ancien gloire tamit dañu jàpp si sama morom ñoo ñoom ñoom ñooy bëggandoo day ñëw jàpp si du ma seetaan muy contact muy physique muy salle muy lépp fu ñu xam dañuy dem ñu xam dañuy def ñëpp soo limee da ngay juum mais yow gis nga loolu kenn ngeen gis na ko ba tax na maa ngi la appelé rek ñu gën a jàpp quoi ñun ay ndaw lañ suñu saison tamit saison bi dañu am ay trois combats mais combat mooy joxe parfois parfois xam nga gars yi rek suñ côté bi mbëri côté bi gars yi du leen sax sawar a jël dañu naan kii mbëru séeréer la mbëru lii la mbëru lii la dañuy am gàllaaj mbaa dañuy def dañuy a jël moo tax combat yi day a tàkk mais dem si waaw ñu ngi proposer adversaire ñu ngi proposer adversaire kañ maintes fois sax mais gars parfois ñooy naan ñooy rasu rek parfois boo xoolee avant kooku rek war naa am combat mm-hmm. même biir kooku ni jox na ma combat mais tamit ba léegi ñooy xaram xarama yàlla ko waa waaw ñu ngi yàlla ba léegi. gars yi ñëwee kaso wala problème la. non du problème mu kase du problème mu kase kase moom amul problème mu naa la kii dafa daanu te man damaa daan damay dem si kanam moo tax combat yi di xaw a tar suñu côté mais am naa yaakaar daal dina am avant koor gaa jeex. am naa yaakaar bu baax a baax. dina bii mooy sa première ci arène bi. waaw waaw bii mooy sa première défaite. am ñaata combat. am naa quatre loolu la yàlla dogal. Elas ndjay nga jóge ci combat ah am défaite mais Elas ndjay dëkk waasewul ñoo takkan ngeen bi ñoo ci lutte simple bi ñoo ci lutte simple mais gis nañ saison ngeen bi ah affaire yi demeewul noonu luy problème bi trop catastrophe. da problème bi tamit mëna né lepp lamb la rek parce que dama jël combat ñëw daanu mu ñëw xam nga pression bo dégo daanu rek si xalé do ko antan nga to di xalaat tout moment gars ñu ne façon na la dama bëj dama bëj dama bëj mbër si lamb li ngay jëlee lamb lamb ngay daanoo boo toogee tamit fii taxul jëli bi amaat ba ba jëli bi dañ ngay jóg si laa jóg duggaat si sama daal dem entraîné mm-hmm. duggaat si laa mais teewul affaire yi changé ba léegi quoi mm-hmm. mais teewul gars yi bàyyiwuñ ma mm-hmm. ngay bëri da ngay bëri daanu doo xam ne loo daan da ngay gis ñoom ne yaakaaroon mën na laa daan sax ñu fas di la daan lamb moo demee noonu quoi xëy sotti ren ñàmbi la rek mais ñu bàyyi benn yoon ñu gën a santaat yàlla rek gars yi ñu gën a jàppaat mais saison bi moom moo gën a catastrophe sama saison yëpp yëpp yëpp yëpp saison bi nii si laa gënoon yaakaar laa gën a am lu bari si laa ñëw gën a doy waar mais ndogal suñu bopp lañ koy nangu xam ne lii la yàlla namul suñu parce que am na ñu gën a méttile am mel ni yow nekk góor comme yow entraîné comme yow te bëriwuñu kon bu yàlla jëkkalee ngay bëri daanu loolu gëneen la si yow dañ koy santata yàlla bu baax baax dañaa yàlla nag yàlla jëmale ko fii nii ba mel ni ñu melaatoon nu ñu xamee woon ñu melaat taxawaat taxawaatoo tànk yooyu noonu ba lu ñu am si yaakaar bu ñu yaakaar am si làmb yi yàlla mu ñu ko amoo tey parce làmb lañu am lépp lu ñu mën a yaakaar am ëllëg tey bi si lamb la nga yaakaar parce que lamb see lañ fa deseeti bàyyi na suñu jàng bàyyi nañ lépp ndax lamb kon jaw nañu lu ne lépp fu lamb nekk fu lu may lamb dañ koy def fu am lamb mais nag boo defee lépp ba pare yàlla may maye maye sa bopp dañuy fekk yi tamit ay góor lañ comme yow ku nekk day génn sa kër yaayam ñaanoo ko papaam ñaanoo ko ay am di jaam ñaanoo ko nga ñëw boo jafante ak ñoom boo daantee suba ñu daan la nga daal suba nga daan leen waaw loolu la demee rek mais mu nga sant yàlla bu baax a baax. sant yàlla. hélas ñu nga sa saison moo gën a naka ci saison ñaata final nga am. final la am ñaari final. waaw ñaari final lu waaw ñaari final la mais sant naa ko yàlla bu baax quoi. parce que métti woon na trop. métti woon trop am amul final ba léegi tamit. waaw mais su ma am ñaari final. sant naa ko yàlla bu baax a baax parce que. dama leen bëri saa saa ma toog du ma bëri ji naa toog un mois du ma bëri tamit. waaw naa toog lamb ji nii parce que rek. nga boo daanu ne du neex quoi. dina neex parce que daanu neexul nga seede nga raar bu raaree ci xoolaat bagage yi ñëwaat mu defaat mi noonu nga toog a raaraat boo jifete ñetti làmb ñetti làmb mais sant naa yàlla bu baax quoi sant naa yàlla parce que mun naa gën a ñaaw nii naa ñu rangal ay premier tour mbaa rangal ay préliminaire mais demu demu fu noonu damay dugg làmb dinaa dem doy sori mais damay daanu après mais yàlla baax na quoi am naa yàq ne affaire dina changé léegi-léegi incha allah mais gars yi seetlu nañ ne euh, El Hadj Ndiaye buy ñëw ci làmb yi meex nga lay def du andi bagage du andi dara loolu tegtal la wala nu El Hadj dafa dafa découragé ci affaire wala nu mu demee noonu. non découragé wu ma affaire yi xam nga làmb fu mu dëgg rek yàlla dafa làmb dafa complexe saa mm. saa mu ngaa di wàcc làmb lépp mm. am lu lay yaakaar si biir doo xam ne mu doon mm. euh, mieux vaut nga xool diim ak lii ndax lu am na ñoo xam ne lii jégu leen am na lii di leen jig saa saa bagage bi mën na bëri fu ne leen lay yóbbu nit ñi fu ne leen yóbbu si ay sëriñ ay mara nga toog dem benn demee san bi sax yow li ngay jëfandikoo sax du mbokk du bokk si yow loolu sax mën na laa yàqal léegi affaire da ngay dem ay sa yenn maara yoo xam ne ñii sës na la jege na la ne la defal lii tegtal bi ne la bàyyi lii nga def ay sarax ak lii ak lii ñu ñu essayé si loolu xool ba déwén mbaa ba kaw gi mu kaw nii ñu waajaatal la dafaatal ne la mais instant yi nga jonoon commencé da nga teg côté bële parce que yooyu gis nañ ba gis na daal nekk lu dox te bi tamit mu nga defee tamit gis naa résultat mm-hmm. parce moo ci ko defee si laa jël wax na kon ñii du ñu wax la quoi si laa ko depuis boobu depuis boobu léegi nag si laa def mais li ma ne waaj lamb laa waaj lamb ba léegi damay génne samay sarax damay entraîné damay def lépp waaj lamb ji dem bëre ji afee na kañ takkaay bëri la ñu gis mais takkaay ba léegi mu mu ngay mën waaw mu ngay mën sànni mo sa dara ba léegi moo suñu kër waaw loolu la rek mais hélas seetlu nañ li muy compétit bëggiwul ñuy ñu ngi naan grand bi nu mu fi nekkatul ah Zala Ndiaye looloo tax hélas découragé xam nga bàyyi loo xam complètement nu mu demee noonu waaw damay dégg gars yi wax loolu parfois ma yow grand bi fu ne dalaa xam nga nit ki sonn si yow rek ak tamit foo tunee gis ko si wët quoi moom lu bëri moo dem di uti ay bagage mbaa affaire yooyu quoi mais tamit man nii laa yàgg mel quoi parce que man sama compétition mënul demee noonu parce que xam nga mbër rek day bëri ay blessé mbër mu wër a nga amul mais yéen am na ay blessé xam ne du la teye entraîné mais da tere bëri parce que mën ngaa si entraîné sa supposé mën ngaa gaañ si loxo dem foo gaañu tànk dem bëre ji mënul ne mu gaañu loxo dem bëre ji mënul ne parce que bëre moom corps bi mooy bëre sa yaram yëpp ay bëre moo tax parfois nga toog am blessure bu ndaw toogaale ko noonu ba mu tane ko dem bëre soo daanoo boo ñëwee da ngay moo tax parfois damay obligé ma toog ba loolu tane ma sànni sama bopp ma demaat nekk si làmb ji waaw loolu moo tax may raar parfois lu bëree bëri voilà. Hmm, Elaj euh, euh, euh, saison bi naka nga ne ci yow ah am nga deux finales mais gis nañu Elaj tamit moom du génn. élage arrondissement bi ah moom la ko kal pourquoi pas eh, élage comme affaire yi dëgg la nga dem championnat Qatar ni ko gars yi dem biir loog bi wala côté Kaolack bi noonu mais élage arrondissement kese lay bëggee lu waral loolu ak Joal fii nii. waaw loolu tamit moom dama koy proposé lu bëri parce que boo xoolee. bëgg naa fa ren benn yoon mën naa toogaat cinquante jours fa bëriwaat <laughs> man moom loolu sama loolu sama defa quoi lu génn dem bëri ci ay Toubacouta ay Kaolack côté boobu noonu. gars yi nee nañ ñemewoo coono hélas. waaw looy wax <laughs> waaw loolu gars yi gars yi ñemewoo coono voyage su ma voyage jot <laughs> sax su ma ñuy wax yow boo voyage Dakar ñëw sax da ngay feebar ñemewoo génn mais dinaa génn nag dinaa génn incha allah rabbi quoi dinaa génn parce que ceeb ceeb may ma jàmm tout le temps damay au téléphone kan dem kan dem même Ibou damay oo oh, léeg mu njore too nii dama kan dem campagne fële nga toog fii Joal bi rek topp arrondissement bi rek mu dëgg na ngay xool bi da nga côté mm-hmm. ma ne ah dinaa def dinaa def laay wax rek mais ren moom insha allah rabbi mm-hmm. bu naa dugg foofu yëpp foofu foofu noonu seetlu naa ne gaa yi ma ah, foofu de fils moo fa ne waaw fils de Balla moo fa ne daje nañ fa moo fa ne benn mbër nag benn mbër waaw benn mbër ah, mais de Balla moo fa tëj parce ah 26 final waaw saison bi commencé. yëgu ba sax loolu. ah waaw <laughs> 26 la am de. 26 final la. waaw 26 moo fa tey. ah kon bu ngeen te keroog ba ngeen final foofu nga daan. waaw bu ne final mm-hmm. <laughs> ah, moom la am de. ah kon boobu waaw côté boobu la quoi côté boobu moom ak côté yu bokkul quoi. waaw mais yëgewul sax loolu loolu. Ah, waaw boo ko yëgee hélas yow doo génn. <laughs> foofu daal am na ay mbër moom am na ay mbër moom am na ay mbër trop moom parce que boo fa demee fi nga dafa ay mbër yu bëri. ay mbër yu mag sax xam ne ñii maa ngi leen di sax fa muy dégg seen tur rek. mais bu ma gisee nga xam ne kii di parce que YouTube bi ngay saan quoi à travers YouTube bi ngay saan waaye di gis seen seen tur yi seen final yi. léegi moo tax ko ma ko dugg làmb ji gis naa mbëri ba benn sax benn grand mu naan ma làmb ji moo ngi dis làmb ji ma ko làmb ji mu ne waaw moo ngi dis làmb pourtant ñii damay gis télé bi ñun ñëpp YouTube bi affaire yi noonu waa ñii def mais ma ko prendre ak lii toujours parce que suñu côté bi mu gën gis côté bi mm-hmm. mu ne moo tax ma war a ñëw fii nag mm-hmm. mais nañu fa dugg incha allah xool fa tan fa suñu sens mm-hmm. xool lu fi yéen fi yàlla di may quoi mën naa am suñu wërsëg nekk fa tamit fa nekk rek nañ ko jël incha allah rabbi waaw loolu mais gars yi eh, nee nañ eh, est ce que El Hadj jotul mu yokk poids parce que boo xoolee ñu muy bëggal ci côté arrondissement bi ñu bëgg dañ ko xaw a ëpp masse parce que par exemple benn ma ñëw ci benn combat sa diggante ak Ibou Ndiaye fii Fimela ngeen bëgg combat bu neex combat boo xam ne ah waxoon nga ko daal sax mais gis nañ ne poids bi euh, dafa def handicap est-ce que El Hadj jotul mu yokk poids. waaw effectivement man kañ à wax sax yokkal sa poids bi yokkal sa da ngaa ndaw da ngaa ndaw mais man adipose yi gars yi di jël sawar sawaru ma ah, damay a liggéey naturel quoi sama doole laa liggéey combat bi nag mën naa métti nga ëpp ma poids mais dama jaay doole quoi. waaw parce que boo xoolee man ñi may bëre yëpp ki mu mën si jaay doole. nañuy bëree kañ ba nga daan ma. mooy dem ba ah, si finalité bi nga ëpp ma poids dootoo dootoo dootoo mouvement bi day métti. wala naa yokk benn 5 kilos lu mu dee dee naa da nekk déyoon ngi fixe poids lourd kay waaw maa tolloo gars yi parce que yi ma ko wax sama benn copain ma am ko ma da nga yokk paay tolloog ñoom mu bu boo jotee bu bëree ba sonn ngeen bës buuxante nga nga buuxante ak ñoom mm. mais ni nga toll nii mënoo buuxante waaw bu gaa mbëkkee da ngay fas mm. bu baax a baax naa si parce que laal aussi gis nañ ne euh, ngañ seen muy jóg soog a tëji saison bëri Fatick ah nga egg foo xam ne yaakaar naa depuis saison bi mu e-, ubbi ba léegi mba foofu wax nga ko ndomb hélas luy problème hélas woon doole wala hélas ensemble bi da looloo tax waa jëga ci ko wala nu mu demee noonu moom boobu ñàkk moon doole sax man nag moo nekk mënu war noomu xam ku nekk da nga wax sa dëgg rek Bakary Moussa Ndambe dama ko war sa kanam doon Ndambe ma ko war noom ba ko wax dëgg fa ne yàlla su mënoo enwul xaañ mënu ma si leneen loolu loolu moom sans point faible quoi par rapport ak yeneen mbër yi du ñàkk doole nag parce que boo xoolee dañoo jàkkaloo bëri bu ñu bëree nu ma ko def noonu bëggul ko noomu du caax dama dama kaa naax plaqué ko loolu yaaka na bo mu doole loolu waroo ka mën a man def waaw mais wurno mom dama si feebul dama si feebul loolu moom dama koy dama koy d'accord bu baaxa baaxa baax a baax bo wax la waxee ren démission wur naa ndoom pammaroon di kete kete ba ba ba jaaxoon mom waaw wurno mom loolu moom sama handicap la quoi dama koy nangu mais na ci travailler nak parce que gaay ñu ngi ci wax à chaque fois di ma ko revendiquer na ma li li mais na ci liggéey bu baaxa baax gën ci jangal ci ay fem quoi lam lam da ngay jang rek ah ngay jang rek ñu jang du weesuñu ñu pour ay ndaw lañ tan mbëri kuy bëree moom ba te bàyyigoo rek à tout moment yan ngi ci yaa ngi ci jàng parce que xam ne xamagoo ko booy génn di nga xam lépp ak grand yi tamit di la si jàppale waa loolu rek nañ si bàyyi xel baax ba léegi eh, El Hadj ci début saison bi poids lourd yi yan yan nga laalante ci ci début saison bi. bii nii. xëy na équipe bu maa seen kese si poids lourd yi. Mm. waaw. Ibou Ndiaye ah waaw. waaw ñu laa jàpp ñu ma bëri ren de ngeen seen mm-hmm. lamb yaayam ku la génnewul yaayam ngañ seen la ngañ seen waaw ngañ seen la woon waaw mu ngi doon début fan foofu noonu mm-hmm. waaw ngañ seen la woon mm-hmm. ñu waaw kon laaj lu mu bëri ren bëri lu de sama bëri moom du sama bëri moom noonu la quoi duy bëri moo tax sama di naqar sama côté quoi parce que su ma bëree nii su ma teg su ma teg ñetti lamb rek man damay finaalu mais bu matee la ñetti làmb nag moo jafe quoi xam nga mën a wax lépp rek mais ñetti làmb matee la ko moo bëri ñetti làmb yu bëri moo jafe soo xoolee su ma bëgg a bëri a bëri ji affaire day que nekkul El Hadj Ndiaye daa naa ko nag parce que lu mu bëri def laay def quoi xam nga nit parfois sa comportement day nax nit ñi quoi sa que day gis yow am benn benn benn comportement bi ñu ne kii gëmul làmb mbaa non seulement qui kii suis mais lu la quoi lu lu ma la en plus man dama def école ans ba ans ci ban école bu ko sa bop ko am comme ñom wa melni ñom non je suis ñu mm. lu xam wa xam mm. yow comme bu def na école mm, troisième dem na Thiès def formation soudure métallique def deux ans war daw bàyyi waaw boobu laa doo commencé bëri si laa daw bàyyi. commencé naraw si laa commencé naraw waaw. <laughs> di ko xoolee man bëri ma rogaadu maa ngi ñëw di bëri tànk moo def lu bëri xamuñ ma maa ngi ñëw di bëri tànk. parce que man seetaan naa benn vidéo ci Lutte TV làmb tànk film nga jël ko ci kaw ma juumul. waaw waaw janaa tànk film laa boobu laa bu laa doo commencé bëri. Hmm. man bëri may rogaadu bëri ma sax bëri làmb xaw xaw ma ne kii Rakosa Ndiaye Rakosa Ndiaye la wax rek loolu demee quoi moo tax nag gars yi suñu gisee nii comportement nga naan ay gëmu lam daa sudi seeg daal mais noonu lañ ma yaree quoi noonu lañ ma yaree mënuma si tamit am nga sant yàlla quoi parce que nit ku nekk nekk noo mel rek ko yàlla mun naa mel ne leen mais nii nu ma yàlla bindee waaw moo tax ma nga sant yàlla bu baax di ko son kan yi ay damay toilette mbaa effet gëmma làmb du loolu hmm. làmb même bu dul loolu sa après làmb si mooy loolu da nga war a clean yaa ma gën a xam parce que làmb ji tamit xam nga yéen ay mbër ngeen mais tamit ay ay nit ngeen hmm. quoi qu'on wa après lamb ji waro mel comme ni ndol di def xam nga tilim ya ma gëna xam ku la gis wa lol loolu daal laa wax sama gars bi saa sa ñëw da nga jaata mais leen tey jii nii du question jaay daal mais tay ji ni bu xew amoon ben dekk ba ben kër am xew ngay ñew mbeub bi ñu def mbolam bu mbeub yi ñi nga seeb ci biir waaw moo tax nak mo tax foy dem ci mbolam nga war waaw sol lu set parce moo liggéey xaalis bi weex mhm. liggéey xaalis pare te doo sol lu baax doo yor lu baax waaw loolu moom man moom dama kaa continuer quoi man moom <laughs> waaw loolu moom ma kuñ ko su may génn sax sàmm gi ma sàmm mhm. moo tax man moom noonu laa mel depuis may jàng ba léegi nag noonu ma liggéey quoi mais après làmb tamit damay def làmb puis làmb tamit damay def làmb peut-être nag teel naa si làmb nii quoi damay dox affaire yi noonu parce que li wax rek taw ma ko quoi waaw damaa xëy rek xam nga mbër mu nekk si yëpp mm-hmm. mënoo mënoo ko échappé mm-hmm. maa xëy mu dugg ma rek mais lépp lu mu mbër def dama koy def waaw lépp lu mbër di dem dama koy def damay entraîné ji damay sango ji damay dem fu ne si làmb waaw làmb moo tax ma dem dëkk yi bëri fekkoon na làmb du ma gën Joal bi mm-hmm. mais làmb moo dëkk yu bëri ma xam ko si làmb moo tax ma xam ko kon su ma nee làmb tax nag xam nga xam nga lu si topp loolu jaruñ ñu koy wax mm. hélas euh, gis na ne début saison bi euh, métti na ci yow te instant yi gars yi hmm, dañ jël nañ mbëkk bi immigration clandestine bi gisoon nañ sa sa copain sax demoon na. Hmm. waa yeggul ah, ni mu nakaaree ci yi ma hmm. <laughs> moom mu doon na muy zaal. à part loolu amul keneen ko waaj suñu kër man moom waa musuma ne sama clandestin musu ne sama xel. juste dëkk bi bëri bëri clandestin yi musuma dem saani sax tefes comme gars yooyu noonu. musuma ko sax def. man moom yooyu moom bokk ma si quoi. Lass dafa gëm ne ci làmb ji daal mën na ko yóbbu. Euh, euh, oh. waaw damaa ne làmb ji nii si laa mën a amee lu ne parce que un jour ma wax mm. mu ne am bureaucrate bi li muy am yow li ngay am moom day fekk chaque weer lay fekk trois cent mbaa quatre cent mille benn ah, semaine bu nekk quatre ah, weer weer weer bu nekk quatre semaines quatre semaines bi daal dimbali nga am si ne loolu loolu weer deux millions moom loolu professeur amu ko agent amu ko kon yow nga mën investir fii nii nga toog fi nga investir te bu wax loolu ba léegi nii dama jàpp ne ki li mu wax ni dëgg la foo ne si mën investir fii si ñun mhm. moo tax man ay affaire yu clandestin yëpp néew si man damay entraîné ñëw toog di xaar su ma war a jotee rek ma jël li ma war a jël waaw mën naa mën naa am fii li ma war a teg mën naa kaa tekkee fii si dëkk bi waaw hélas looy tëjee émission bi comme instant yi mu ngi guddi te xam naa bëgg nga dem dogu ji waaw di ziar ñëpp rek di baal ñëpp àq encore di baal ñëpp àq du nuyu suñu waa kër sama yaay di ñaanal sama papa fu mu tëdd gën ko fu mu jógee ñana saa mag yëpp ñoom Zal ñoom Habib ñoom ñoom Fama sama jabaru yi passé di ko ñaanal Ousmane fu mu tëdd gën a fu mu jógee yàlla xaru ko àjjana di nuyu ñëpp di nuyu sama waa koñ di nuyu sama mag Kole Awa ak sama jabaat moom maa ngom di nuyu ñëpp di baal ñëpp àq di ñu may jàppale si làmb ko mënu ko def waaw ñoom Moussa Mbaye fu ma tourné fu ma dem lay dem fu ma dem sama sama si Mbaye fu ma dem si àddina damay topp ñoom saf pa baali noonu amoon ngaa la aw ma fayam tum ñëpp dañ muy jàppale à tout moment seen xaalis di ko def si man ñoom pa asu ak sama gars yi nekk kaaw ñoom sàngot ñoom tijaan ak ñoom taxaa bajaan ñoom dañuy jënd seen bagage moo ko yónnee ñu amee jóob aw seen fay quoi ki leen ñaanal yàlla yàlla yàlla yàlla xeb dolli quoi li ñu cëdd si man yàlla nekk yàlla mootali ba ñu gis seen njëriñ quoi ñëpp njëriñ ñoo si parce que ñëpp ay ndaw lañ di ñaan mburu Joal Fadiouth yëpp ku nekk yàlla taxawu la yokk kàttan bi yokk man-man bi quoi ba li ñu yàq làmb yi rek yàlla motal ñu ko ba mën si jot ak jàmm ak salaam parce que ñëpp benn lañ ko waa amul soxore amul iñaan amul dara ñëpp benn lañ waaw loolu laa ñaan di benn appel nag koroog ku maram jaar def association mbëri quoi mbëri lutte en activité yi simple yi am na association abu asef membre yi ak biram kunkung ku leen si oo di nga si jot di si am benn leewal quoi am na ay carte membre tamit da nga def ay aide pour mbëri am trop trop quoi ku su mel ni ñoom Boy Maroon waaw ñoom Duuba Jagle gars yooyu gars yi ñu bi maa ngi tegal ma ne mbëru Joal yëpp ku nekk jënd carte membre quoi ak mbëri ku nekk Sénégal yëpp waxuma te nit boo nekk si dara sa moom nekk si def la comme sa moom def boo liggéey bu bu waxee yow nga mën a wax nu laa ko gisee quoi bon tax maa di maa ngi solee bu ëpp passage tamit di ko affaire bi rafet na parce que ñun yëgul ko woon mais ba mu ko yëgee def nañu ay rakam lañ oo nañu ñëpp nañu dugg leen te moom bu dugg ñu dañuy dugg parce que mënu jiitu sa affaire bi mënu jiitu sa aar bi xam na affaire nu mu fa demee moo tax maa ngi ko nuyu bu baax di wax nañ mbéy yëpp lance appel yëpp ku ko yëgutoon rek boo oyoo ñëw noonu Abou Assef am lu leer ñëpp kooku ñu ñëpp ñoo ko bokk quoi. doo nuyu zam nag di bi rafet na trop ak Nabou Diouf quoi Nabou Diouf jàpp na si quoi on a ma appliqué na bu baax a baax zone affaire bi naas na seen télé bi yàlla yokk si kanam kanam ba mu nekk télé quoi parce que si la rek mais liggéey rafet na quoi bu fekkoon dafa ñaaw kon tey du kon tey ma demee nii mais lu jafe ngeen ji lu jafe ngeen wax quoi waaw moo tax li ngeen yootu si rek yàlla nag yàlla moo tali bi ngeen am si seen njëriñ gis seen njëriñ tam nekk lu leen ji quoi parce que ñëpp ay ndaw lañ quoi ñëpp ay moom lañ même classe d'âge lañ bu yàlla defee ngeen nekk si lii nii di di ñu wane di ñu promouvoir di ñu wane di nëbb seen bopp dañ leen ñaanal ba li ngeen yaakaar yàlla mottali ko si bàkk weeru koor gi si bàkk weer bu sell bi alhamdulilah jërëjëf